la réhabilitation du de pêche de Joal ci juróom benn weer yii defar nañu un site moderne de transformation des produits halieutiques bu tànn bi donte bâtiment bi defaroon nañ ko waaye fa lañ ko tojoon bàyyi ko ñun ñoo ñëw commencé équiper pour nit ñi mën a liggéey ci juróom benn weer yii li nag ci napp gi kese la lancé nañu un programme de renforcement des capacités des pêcheurs des mareyeurs et des transformatrices fii ci Mbour ak ci Petite Côte bi ci juróom benn weer yi lancé nañu la construction d'un site de débarquement moderne partenariat avec JICA ñu war koo def fii à Mbour defar nañu plan yi ba war a démarrer liggéey bi jël nañu engagement de construire le siège du conseil locale des peche ba pare war koo def aussi ci réseau nationale des conseils nationaux de pêche ci juróom benn weer yi jël nañu engagement te commencé nañ ko sax pour construction des postes de contrôle des pêches bu Popenguine ak bu Joal ba nga xam ne dinañ mën a contrôler la ñuy def ci suñuy réserve ci wàllu jën waaye nag am na lu ñu waxante woon ak gars yi dañ leen ne woon accord de pêche yi ñu def te baaxul ci senegal ba tax tey ku tëmb dem ci géej gi boo moytul booy ñëw li ngay andi du bëri wala lenn sa yenn saay sax nga ñëw doo andi dara président Bassirou Diomaye Faye bi ñu toogee def weer la Louis Michel nga xam ne mooy président commission européenne ñëw Ndakaaru mu recevoir ko woo ma ne ma ñëwal ñu recevoir ko bi mu ñëwee daf ko ne accord de pêche yii mënuñu ko continuer ndax baaxul ci réew mi dañ koy renégocier loolu sama kanam la loolu moo tax ngeen gis tubaab yi gaawantu daal di def avertissement Sénégal ne ñun dañoo am problème ci suñuy qualité yi ñuy exporté Union européenne parce que jàpp nañ ni mun nañ ñoo xoj wala ñu xoxatal ñu. ba ñu dellu gannaaw waaye ma wax leen fii accord boobu novembre lay jeex ñu ngi ci mois de novembre du ma ne accord dootul am de waaye buy am à quatre-vingt pour cent intére Sénégal lay doon leneen lu ci jawaay ci jël dafa wér loolu bokk na ci ci juróom benn weer yii accéléré nañu processus immatriculation gaal yi nga xam ne mooy pêche artisanale bi ci juróom-benn weer yi waaye it euh, moo wax leen ci juróom-benn weer yi Sénégal lu mu mësut def mooy publier nañu la liste de tous les navires les 34 navires étrangers et les 9 navires les 34 navires sénégalais et les 9 navires sénégalais nga xam ne étrangers yi nga xam ne. ñoom ñoo am autorisation pêcher dans les eaux sénégalaises keneen ku dul moom boo duggee ñu jàpp la arraisonné la loolu mosuñu ko def Sénégal kenn mosul publier la liste des navires kon kon buñ leen nee ci juróom benn weer yi liggéeyuñu te jugéen ci juróom benn weer yi ñu def loo xam ne ñoom toog nañu ay décennies defuñu ko ci biir réew mi kon jàpp naa ni bu ñu waxee mool yi bu ñu waxee sénégalais yi parce que napp gi du mbirum mool yi kese ndax ñun sénégalais en tout cas ñun ñi xaw a nekk léegi cinquante bi ñuy nekk gone man Sébikotane gii laa duggee école saa baay bu ñëwaan week dañuy jël oto bi dem Kayar peese fa coof ba doyal ñëw ci kër gi waaye tey kan moo fi lekk coof jox te tubaab yi lañ koy jox fii ci hôtel yi waaye jafe nañu kon su ñuy wax napp waxuñu rek lu jëm ci nappkat yi waaye la pêche est l'un des plus grands employeurs du Sénégal créateur d'emploi nga boole ci ni benn facteur bu am solo la ci devise parce que dañuy exporter lu bëri waaye mu waroon doon un un moteur puissant d'industrialisation gis nga Saint-Louis ba Cap Skirring lépp ay usine de pêche doon fii jën waru fee jóge brut ñu koy génn ci réew mi dañ ko war a transformer fii def ko fii en pot doo koy génn ci réew mi te loolu moo nekk ci vision 2050 bu boobaa ngay créer de la valeur ajoutée lii mooy programme bi ñi bëgg a wu ñun ci lii lañ leen wooye débat am na ku ma fi waxtaanee ñëwal ñu débat xam ngeen xam ngeen biñ ko nee ñëwal ñu débat dafa dem làqatu ñetti fan ñeenti fan ba ñu ne CNRA nee na d'accordu ci débat bi mu doog a génn ne d'accord naa débat ak Sonko loolu mooy mbirum buqat dëgg waaye moom xam na man xam naa yàlla xam na te nee na rapport mosu koo épinglé wax leen ni ñaari rapport nu mu tuuti tuuti benn bu benn bu inspection générale d'État ak beneen boo xam ne dossier 94 yi ngeen doon dégg ñaari rapport yooyu épinglé na ko wax lam ca def moom xam na te dinañ ko publier ba Sénégalais bi gis ko seen bopp dañuy wax ni sàcc bu dul raw jarul yàqi nelaw waaye bu ngeen gisee ma ne ko ñëwal ñu débat parce que ñun dañoo bëgg politique Sénégal ñu teg ko ci qualité xëy di wax waxu ñàkk fayda yiy wax fële Ndakaaru topp ci deru nit ñi di wax suba ngoon loolu du politique yéen su ngeen ñi toppee xam ngeen lu tax parce que ñoo leen njëkk taxaw ne leen pétrole bi ne leen gaz bi ne leen lempo gi ne leen mbay mi wax ak yeneen ak yeneen loolu moo tax ngeen topp moo tax Sénégal yi dañu war a exigeant ku dem ba di waxati politique rek nañ ko ne kaay nga wax ñu yow ci mbay mi wala ci càmm gi wala ci pes bi kaay nga wax ñu sa gis-gis lan la waaye am na ci ñoo xam ne bés ba ne ñu ngay wax te baccalauréat amuñu ko baccalauréat nañu publier seen CV baccalauréat amuñu ko kon bu ngeen gisee ñuy wax loolu ñun dañu bëgg politique bi ñu sellal ko politique mënul ñàkk de temps en temps ñu xaw cee def tuuti xorom sax waaye saaga ak xasteeg ñoom seen bokkul ci politique ku amul xam-xam rek mooy xëy dem jël ay butéelu kenn xamul naan ba xamul fu mu nekk ñëw taxaw di xasteeg di saaga waaye ku jàng ba xam doo defee noonu politique moo tax ñaareelu poñ bi ma bëgg a waxtaan ak yéen nag ñaareelu poñ bi ma bëgg a waxtaan ak yéen loolu man la ak yéen mooy jeunesse bi ak ñun ñii dama koy tënk ci benn poñ mooy émigration clandestine maa ngi leen gërëm bu ngeen nee tere mbëkki